بسم الله والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر أيها المستمعون الكرام في ساعة خسر أونلاين نؤيكم تحية طيبة وهي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كنتم في برنامج من حاج الآبدين إلى الجنة أقدمكم مصطفى ميسام wa fil fanni Serigne Modou Mbaye Thiam ayad allah wa nasr ayuha almustaminul kiram nu ayyukum tahiyatan tayyiba almubarak min indi rabbil isiti wa jalla yi assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu bokk auditeurs yi rajo online dellu si weneen yoon ci seen émission bi ñuy tudde minhajul abidin ilal janna te seen mbokk seen xarit Moustapha mbay Sam di leen ko defal dimanche bi nekk fii ci daaraam ji ñu tudde Ihyaa Uloomu Diin ci studio maam Cheikh Ibrahima Fall radiyallahu taala anhu mbokk mi leen nekkal ci technique bi mooy Serigne Modou Mbaye Thiam ñu leen nuyoo beneen yoon ndokkeel leen ñaanal leen sàkku ci yéen ñaan arab yi day danañ faral di wax ni li kulli makaan maqaal béréb bu nekk ak lañ fa war a wax mu mel ni kon sunu mawdu tey dañ koo bëgg a jëmale ci lu aju ci alquran ak daaray alquran yi ginnaaw bi nga xamee ni naka jekk daanañu waxtaane alquran waaye rawatina nag bi nga xamee ni am na lu laal alquran alkarim kon yayati na ngir nu wax ci alquran moom nga xam ni day déranger alquran moom nga xam ni depuis ba muy wàcc nanga mi siècle ak tey ca makkatul mukaram ba léegi naka jekk daa mas di déranger te du deñ di déranger ba keroog ñu naan suba la ñuy dem yowmal xiyaam waaye nag suñ borom da cee masa dalal xel yi xam leen ni alquran naam déranger na waaye nag pexe mu mën a pexe way pexe ñëpp buñ dajale woon seeni pexe ngir fexel alquran wallahi pexe ma du masa sotti mukk mukk mukk suñ borom nee na rabbi sitwa jàll yuriduuna li yutfiu nuurallahi bi afwaayihim wallahu mutimu nuuruhu walaw kari al kaafiruun suratu saf mbaram yene yere ngi ni yor seeni làmmiñ ngir bëgg fay alquran yor seeni pexé ngir bëgg fay alquran mbaram ni asal du masa am de muni ak pexé yu ngeen mëna teur ak xalaat yu ngeen mëna am ak lu ngeen ko bañ bañ alquran du des mukk di fi nek man yalla dana ko mottali ci na ko bëgge dara dara du ci mejj mu del waxaat beneen ay alquran bu ko confirmé sun ni yuriduuna an yutfiwu nuurallaahi bi afwaayihim bi afwaayihim wa yaba allahu ila an yuttima nuuruhu walaw kari al muy ñaareelu ay suratu tawba sun ni axa kay taxaw ngeen temm ci bëgg a fay alquran ci seeni làmmiñ leerug yàlla gu nga xam ne man yàlla maako samp muy mbir mbër mu ni léng kenn mënul ci moom dara ngeen ni dangeen ngeen koy fay axa kay yaballaahu yàlla lànk na borom nee na man mi nga xam ne maay borom kàttan maa lànk alquran du dañ mukk di nekk di leer guy jolli di defar xoli jaam ñi ba keroog ñu naan suba la bis pinc alquran moomu nag dafa am ay gaay yu ko fi nekkal ñu di leen tudde ay sëriñ daara sëriñ daara yooyu seen pexe yi nga xam ni amoon nañ ko bi ñu sañcee daara ak xalaat yi ñu am ngir def alquran ci dënnub xalel bi ñu wut seeni méthode ci biir méthode yi ngir rek xale bi mokkal alquran am ñu ko gisee neneen traduire ko neneen waxe ko neneen nu wuuteeg ni nga xam ni mooy philosophe bi nga xam ni sëriñ daara yi moom lañu amoon ngir def ci xalal bi alquran alkarim noonu yooyu nga xam ni moom laa doon wax gis nañ fi daara yu ñu lakk ba lakkaale sëriñ daara yi ci biir daara ya gis nañ fi daara yu ñu lakk ba lakkaale donga yi ci biir daara ya jullit ñi alquran mooy seen dustuur fa kaanat dustuuran li kulli almuslimina wa xujjatan ala aljami almusrikin alquran kaanat dustuuran li kulli almuslimin wa xujjatan ala jami almusrikin alquran dafa ñëw nekk benn dustuur ñeel képp ku gëm yàlla waaye alquran dafa ñëw nekk xujja mooy dog aw lay ci kan almusrikuun ki nangul ni yalla yalla ki nangul ni alquran alquran alquran dafa ñew ngir dak aw layam ëllëg ci kanamu sun borom rabbi situ jalla dustur bobu di constitution bobu di alquran seigne touba wax na ci mbindam neena na alquran muy constitution bi ñenti référence la am wala bok ñenti mbir la ñenti ponku la ñenti ponku la ñeenti ponk yooyu mooy yan mooy amrun wa naxyun wa waxdun wa waxiid amrun wa naxyun wa waxdun wa waxiid ñeenti pie yooyu ñooy alquran amrun mooy ifxalu alxayra def leen lii mooy li baax ifxalu alxayra def leen lii mooy li baax wala tafxalu te mooy nax yu bu leen def lii baaxut wa wax dun constitution boobu di alquran ni lii ma ni moo baax ku ko def te defe ko nañ la ko waxe mu ne wa wax it yàlla dig na la àjjana ju dog li ma ni baaxul ku ko def nag mu ne ah wax dun yàlla dig na la mbugal moo xam ne ëllëg danga nga jot suñu constitution yi nga xam ne moo ñu résoudre ñun na ñun waa Sénégal constitution boobu moom len rek la am mooy amru ak naxyu ak waxdu amru nahyu waxdu mooy def leen lii mooy charte réew mi ku ko def doo am leen teeg buur bàyyi leen lii ci charte réew mi la ku ko def di nga am leen teeg buur am lante googu nag mooy wax mooy ñu jàpp yóbbu kaso loolu mooy li constitution wu Sénégal tër constitution boobu bu fekkoon ni dafa dëppoo nag constitution bii nga xam ni moom la ñu yàlla jox rabbi situ wa jàll kenn du ci am looy inkaar waaye constitution boo xam ni fañ ko jële constitution ba nga xam ne mooy ndeyam fañ ko coppi collé ay góor jigéen ak i franc tabax muy constitution wu France ay góor jigéen ki franc-maçon ñoo ko tabax bu dee constitution wu Amérique ay góor jigéen ak i franc ñoo tabax constitution ba constitution bii nga xam ne mooy bu France te ay góor jigéen ki franc-maçon tabax ko ñu koppi kole ko indil nu ba noppi nag ni ba ngeen ci àtte woo for force ñi ndax dañoo nekk ci réewum layik waa ma yonent bi sallallahu alayhi ci réewum layig la doon dund ca madinatu munawara ay yëfar nekk fa ay yaxoot nekk fa ay siif nekk fa ay nasaraan nekk fa te teewul jullit ña ci dustuur bii lañ daan attewoo muy alquran alkarim barki démb rek dégg naa benn waay ci benn tele benn rakku musicien la mu ni waaw bu fekkoon ni dañuy atte woo atte jullit ci réew mi kon léegi bu ab chrétien reyee ab jullit nu ko sari di def parce que du chrétien kon nuñ koy atte ci alxuraan ma ne ko ñàkk xam chrétien bu rey ab jullit dañ ko war a rey jullit bu rey ab chrétien da tey ko dañ ko war a rey yàlla mi bind jullit bind chrétien moo ni bu ab jullit reyee chrétien nañ ko rey bu fekkee rey ga moo ko tey bu ab chrétien reyee ab jullit nañ ko rey bu fekkee rey ga moo ko tey loolu bokkut ak loolu gaa ñooñu nga xamne dañu am ay xalaat nga xamne dañuy nat ci seenum xel rek di wax ñoo fess del télévision yi wax naa ne barki dem ci rajo ci FM ma ni leen amul benn école arabe bu ñuy mokkale alquran amul école arabe yi te ca bu événement bu mel ni amee journaliste yëpp dañuy daw dem ci école yooyu nga xam ne ñooy école arabe yooyu ñu moderniser wala ñu dem ci Euh, li nga xam ne mooy ñooy internat yi nga ne seeni financement bitim réew lay jógee dékk leen micro ni leen léegi gis ngeen daara lu ngeen ci xam bu ko defee ñoom ñu ne ñu ne ñun kaccat ñu ci ndax ñun daaraa ngi nii dafa silvisé dañ ko moderniser et cetera et cetera alquran ñi ngi koy mokkale ci daara alquran même internat yi nga xam ne sax daañu fa mokkale alquran ba tey am na beneen afatu bu am mooy internat yi buñ xale ya fay mokkale alquran buñ fa jógee buñ fa jógee daanaka mën nga xam ne xarom yara leen di tare xarom yar xamuñu dara kenn du leen yar xale yooyu di génne ci internat yi daanaka ay xara leen di tare kenn du leen yar xamuñu lu baax xamuñu lu bon li ëpp ci internat yi li ëpp ci man indiloon nañ ma fii ay xale yoo xam ne internat lañ nekkoon man alquran waaye yar ba day moom la yàlla xam doy na kenn yaru leen looloo tax seen baay indi leen fii ñu jaar fi ngir ñu jubbantiwaat tuuti seen yar bañ ñëwee li ma jëkk a seetlu ci ñoom mooy ak ma xëy yalwaan loo ji leen ñu leen añ jot na ñu ne waa ma dem leen yalwaani añ donte ñoom buñ ñëwee añ bi ñu yalwaan duñ ci añ de sama añu kër ci la ñuy añ waaye nag ma ni leen xeetu tarbiye la gis nga ni ñu waxee ni xam nga boo demee ci xoqal bu kaaw sëñ Tuubaa di ni arkaanul awliya arbaa ponk yi fonde waliw nit pour mu nekk waliw ñeenti la xoolal demal ci sëriñ daara yi ñoom it ponk yi ñuy fonde euh, xalel bi ngir defar ko ba mu nekk al insaanul kaamil ñeenti la mooy lan mooy tarbiya yéen ñi nga xam ne yéen a ngi may diglu jël leen seen big ngeen bind baatu tarbiya jël leen seen big ngeen bind baatu tarbiya ta ra baya tara baya lolou moy tarbiya tagi moy lan moy taxani bu jikon mag ñi ngir ñu defar seen yi di len yar aka jangal dañ daan taxani ci mat momu lañ daan taal di jang muy taxani ragi roti ñoy roti luñu naan di roti luñu sango di roti luñu togge baagi mooy bay dañoo amoon ni tool di bay di ko dunde ñoom ak seeni donga yaa gi mooy yalwaani waxtu wu ñu demee ba nga xamante ni nii liñ bayoon dem na ba sàq mi fëgg te nawet bi ak seegul ñu tàmbali di yalwaan di dunde léegi ma ni tarbiya taag yi di taxani amatul ndax sëriñ daara bi mooy xëcc courant di fay courant kon léegi moom taxani amatul rooti muy raagi ma ne sëriñ daara bi mooy xëcc robinet ci biir këram di fay facture kon rooti amatul ma ne baagi muy bay sëriñ daara bi amatul suuf su mu bayee même bu amoon suuf suma mu bayee àll bi dégracé na ba nga xam ni yàqu na ba nga xam ne nii kenn mënatul boo bay boo bayoon junniy barigo boo moytuwul juróomi téeméer nga récolté léegi kon benn képp la sëriñ daara yi dese mooy yalwaan yi yalwaani rek la sëriñ daar yi dese pour mën a defar donga bi yalwaan rek ma ni yalwaan moomu saa bu ma dajeeg sama mbokki sëriñ daar yi dama leen ko wax ma ni yalwaan moomu ni ma gisee nit ñi di ko defee man dëkkuruma ci mooy yor say dong di leen jàngal ba midi jot rek nga ne acca dem leen yalwaani ku ni gàddu spotam samp xelam fu ni mu dugg fa di yalwaani man dëkkuruma ci loolu wërta demee noonu yar yalwaan pour defar xalel legi nak yalwan mumu na nga xamne da nga nan xalé yi am xalé bu ndaw njëkk ci genn kër ñu sarax ko biñ ko saraxee moromum dongaam mi ko ëpp doole ñew duma ko nangu ko lek ko mu joy dal di tàmbalee ëmbal xalel mbokkam moomu ak mbagnel ba nuppi gis nga ni ni ko xalé bi fitnalé morom ji ni ko fitnalé d'accord ma ci lol de lima d'accord moy comme man ni may def moy bu yàlla dogalee mu wóor leen ni ñoom añ baa ngi nii ci kër gi ñu di ko togg waaye bu añ jotee nga jël bool jox ko ñaari donga te man ni ma koy defee sama daara dama wax ni bi balaa génn di añ na fekk booba mu jeexal téere suuf bi day jàng téere suuf bi ba jeexal ko doon magum jëmm doog a tàmbalee yalwaani léegi lu lu ma jublu ci yalwaanu añ moomu nga xam ne ñetti kër ñeenti kër lay wër ñaaray ànd yore benn bool di ko awante léeg-léegi ñu dugg kër koo xam ne daa sant loo wala silla wala jaxate ndong añ ñu ne ko waay jugal fi waay ubal ñu suñ bunt bi yéen da ngeen a soof lool loolu xale bi jàng téere suuf bi mu ne ci boppam am yeewute di magum jëmm léegi xam na xàmmee daal nay jël leçon ci ni ku siis a ngi nii ku aaya ngi nii ku naya ngi nii loolu mi ngi ko arrêté ci boppam beneen bi ci des mooy rëy gi ci moom dana deñ léeg-léeg mu daal di dem ci kër benn waay bu sant loo wala jaxate wala mbay ndongaañ mu ne ah yow dox nga naaj di kaay raxasul boo noppee ñu tibbal la tangal ci ndox mu sedd mi naan mu ne ah ku tabee ngi nii ku nangu partagé ngi nii loolu lépp xale bi di ko enregistré ci bopp bi gis nga xalal boobu bu jógee ci daara ji ba ñibbi këri bokkam dana maneeg boppam dana maneeg boroomam dana maneeki bokkam nit dootu ko def lu ko naqari nit dootu ko def lu ko naqari ndax lan ndax xol bi toj na ba noppi doon naa ko misaal bi may wax ci si DFM barki dem ma ni ñaari séeréer dañoo ànd benn bi dafa jaar daara ñu tarbiye ko benn bi jaarut daara bu ñu demee di tukki dem ba ci àll bi amuñu dara lu ñu lekk xiif ba xam ni ñu ngi bëgg a dee donga bi jaar ci daara séeréer bi jaar ci daara ñu nañ yalwaani menn moroomam mi jaaru ci daara ni koy yalwaani dee dee ko gën dee ñu suul la moo gën di yalwaan mu ne ko amandi ah, damay yalwaani ah daal di wut boolam kër gum dem ndonga añ ñu tibal ko mu toog lekk ba reg génn sa waay ni ko ah, yow de añ nga mu ne añ naa kay damaa yalwaan ñu di ko def moom bam yalwaan ba añ ba suur mbokkam mi mu lekkul ah reer jot noonu te suba sa añ jot bi ñu yalwaan ki nga xam jaar na ci daara ndonga añ comme moom xiif na ba bu lekkul dee mu ni moroom jaa ngi ànd ak moom waaw moroom jaa ànd ak moom mu ni ko moroom jaa ngi ak moom du yàlwaan neel ndonga añ mbaa da nga deekub xiif ñu gis ni kon ki nga xam ni jaar na foofu defar rek lañ ci jublu woon defar rek tarbiya rek moom lañ ci jublu woon ñi nga xam ni mooy école arabe yi bu fekkente ni yow dangay ngay dem jàng alquran tuuti jàng mathématique fee tuuti isaab jàng fële juxraaf euh, jàng fële euh, calcul jàng waaye loolu nu mën a ànd ak mokkal alxuraan moo tax mboolem borom xam-xam yi ngay dégg fii ci Sénégal laa wax de waxuma yeneen réew waaye fii ci Sénégal borom xam nga fi dégg te ñu jekku ñoom ñëpp ci daara yi lañ jàng alxuraan ba mokkal soog dem jàngi arab soog dem jàngi arab waaye ñi ci mel ni man nga xam ne dañoo dem rek dugg ci école arab yi moo taxit mokk luñu alxuraan maîtriser wuñ ko buñ bëggee waare nag mën nañ caa bind ay quelques aaya waare ca pare ca kon nag buñ ñu bëgg a gëmloo ni am na ay école arabe yu fi nekk yoo xam ne dañ leen a moderniser donc ngay lii fekk ñooñu yoru ñu daare alquran daara daara alquran nga fay jàng ba mokk rupp leneen looy jàng nga door koo jàng loolu mooy daara loolu mooy daara léegi nag ñun waxuma la école arabe yi nga xam ne sax ñoom ay financement moo leen di jóge bitim réew ak lenn ci ñu yore ay internat internat wax naa ko waxati ko man waxuma ni baaxul waxuma ni baaxul de waaye billahi daare alquran du moromam ci defar nit ak yar nit ak jàngal nit du moromam boobo ci jiitu beneen bi ci des mooy ku yor fukki doom doom bi ni nga bëgg koo fayal weer trente mille quarante mille ci euh, internat yi loolu ku ko man loolu ku ko man man maa ngi giñ ci yàlla ni am na donga boo xam ne mi ngi fii ci daara ji jàng alquranul karim ba wàcc bay jàng xam-xam làq nañ lu bari ci téere sëñ Tuubaa yi te xaw ma ay waajuram daanaka bu ma dajewoon ci ñoom ci mbedd mi duma leen xam ñeneen ñi ci des xam naa leen waaye waxuma la ñu am luñ ma faye di fay daara ji bu daara ji doon fayee ko waxuma la ñu am lu ñuy fayee waaye dama ni man sax léeg-léeg maay joxe dépasse seen kër koo xam ne yaay joxe dépasse këram kooka dana am lu mu la fayee yow te xalal baa ngi nii ci daara ji jàng na alquran ba wàcc alquranul karim bay jàng xam-xam tey bu toogoon di jàng alquran da yaakaar ne am naara toog sëriñ daara yi nga xam ne ñooy def seen effort ngir yàlla di jàngale alquran ngir yàlla rek rabu sit wa jàll ba bëgg ñu leen a may seen kii ngeen dégg ni jàpp nañ ko ci jéng gu mu xaleel xalal ba yóbbu ko ci kaso ma nga ca àll ba yori toolam di bay di jàngale di dunde lu lew kooku bu fekkonte ne état wu l'islam la wallahi état wu l'islam bis bu nekk da koy rampoos di ko neexal jamono bu nekk waxuma la tëj ko kasa de waaye jamono bu ne da koy neexal ndax mi ngi koy dimbale ci defaral ko ay citoyen loolu dinaa ci ñëw ci kanam fii ñu toll mooy fa alquran toll woon démb rek mooy alquran bi muy wàcc di defar nit borom xol yu añaani dañu ni hadha min kalam muhammad wa laysa min kalam la way muhammad li muy wax du alquran de li muy wax du alquran waxi bopama sun borom ne a te ngeen a bañ wax lolu way tanzilun min rabbil alamin muhammad li muy wax ni mako wacc ci mom de tanzilun min rabbil alamin mi ngi bayiko ci borom bindeef yi ki mom bindeef yi moo wàcce wax ji ci yonti yàlla muhammad waaye terewul rek la alquran waxoon wi saa tutla alihim ayatuna xaala asatirul awalin saa bu muhammad ne yàlla nee na yonent ñu ni ko ah yow li nga wax ay léeb dong la am na ñu la fi woon daan ko léeb yow li ngay wax ay léeb dong la wi saa tutla alihim alayhi ayatuna xaala asatirul awalin yow ay léeb dong nga ñuy wax nag ay léeb rek la ba léegi loolu la gaa ñi dem nañ ba xam ne al day defar nit wax naa ni yi nga xam ni moom d'accorduma ci ci daara te duma ci d'accord mukk ba ci jëkk mooy di jàngal nit ki di ko duma ma ci de te duma ci d'accord dóor nit duma ci d'accord de ndax ñàkk a mokkal déedéet xaleel bu mokkulul pine ko ndax sallallahu alayhi wa sallam suñu borom da ko ci alquran ni ko taaha ma anzalna alayka alqur'ana li tasqa ila taskiratan liman yaxsha suratu taa yow muhammad sallallahu alayhi wa sallam man day wàccuma ci yow ngir teg la fitna wàccuma ci yow ngir teg la fitna damaa bëgg rek alquran mii bis boo ko manee nga di ci waar ñi ragal yàlla nga xam ne buñ la déggee waaru li man yax saa loolu dong laa ci jublu waaye teg la fitna taxut lu ko waral mooy alquran bi muy wàcc buy wàcc kaw yontu yàlla muhammad mas nañ ko ko laaj ay sa laaj na ko ñu ko yow Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ana nan ngay rasuwaare alquran mu ni yii yow alquran day ci ñaari façon laa koy rasuwaare benn bi mooy Jibril day ñëw rek mel ni lu yor benn wall wall benn jóolóoli di ko fëgg mu naan kasang kasang kasang mel ni luy bëgg a fokk sama nopp yi mun waaye bu nee kaccat ma xam li mu wax lépp son bi rek laay digg waaye bu son bi arrêté rek ma xam li muy wax lépp lu mu doon mu ne beneen bi ci kenn ci saxaaba yi ñëw toog ak man wax ma lim may wax ma dégg ko mokkal ko jeex na alquran noonu la noonu la mel dafa am moment boo xam ne boo ci tolloo alquran day jafe ci yow day diis ci yow ba doo bëgg loolu daw bàyyi fa daara ja xalel bi bi muy doog a ñëw di jël bind bu ndaw di jël bind bu ndaw di jël bind bu ndaw di jël bind bu ndaw di jël dërsa bu ndaw ba xëy wàcc alquran bi mu wàccee alquran léegi mu war a bekk bis bu ma bis bu mu war a tari juróomi isib alquran wala juróom benn isib wala ñeenti isib bis bu ñu war ko tari foofu bu ko yàlla dimbaliwul dara du ko fa xaar bu ci sëriñ daar bi jëpput waajur yi jëppuñu ci du ko fa xaar de du ko fa xaar ndax dafay diis ci moom du ko fa xaar loolu nag sëriñ daara yee ko xam waaye samba sugum gay moo xam ne xamul ci daara bala ma am lu ma naqari rek dégg benn ministre wala benn député boo xam ne bu ñu waxee mu naan daara laa jaar daara yi mbaccaxaan yi daa tax ñuy wax daara daara joo xam ne seen koñ la nekk boo demee jàngi français ba ni xaaw ñëw jël fa juróomi aaya ak juróom aaya ba nga ba nga daataan euh, jeexal am ak suuf sax euh, ñu ñu yóbbu la nga at nga dem nga dem nga dem lycée wala nga jóge suiseen bi nga doon waaye ñu naan jaar naa daara loolu mooy daara loolooy daara loolooy daara koo ci tari woon fatiha fatiha koo ko ci tari loon wallahi alhasim du ko tari fatiha bu sell sax kenn nit ñu mënu ko sun borom daa ci alquran ni suma na alkitaaba allasina stafaynaa min ibadina alquran man yàlla maa ko moom maa seet samay jaam ñu ma neex ma rafaatali leen ko alquran man yàlla maa ko moom maay seet sama jaam ñi ma neex ma tànn leen def ci ñoom alquran ñu bëgg alquran di jàngale alquran alkarim alquran moomu laa yatihi albaatilu min bayni yadayhi wala min xalfihi suñ borom nee na suñ borom nee na alquran dafa parfait alquran dafa parfait amul luñ ci war a critiquer naan nii la nii la du nii bu du woon ak lii ka mu ne loolu amul ci alquranul karim laa yatihi albaatilu min bayni yadihi wala min xalfihi moo tax nag suñu borom yonent bi mu yónni woon alayhi salaatu mu wax nu lu mel ni midi suñu borom sallallahu alayhi wasallam bi mu fiy jógee dani taraktu fiikum ma tamassaktum bi lan taddiloo ñu ne ko loolan la mu ni kitaabullahi wa sunnati maa ngi nii di dem di dem maa ngi nii dem yowmal xiyaam maa ngi nii jëm àjjana mu waaw mu waay waaye attention de am na ñoo xam ne danañ ñëw sama gannaaw duñ bëgg lu dul ngeen falang alquran sànni ko fële programme bii nga xam ne moom la état def naan moderniser de daara képp ku ci bokk na la wóor ni say dong dootuñu moo ko alxuraan te xanaa xamu leen ni yéefar yi seen bëgg-bëgg mooy ñu dem ba addina bi kenn dootu mokkal alxuraan ngir ñu mën a asaf liñ bëgg a asaf ci alxuraanul karim am na ay wax ci wàllu jihaad dañ koo bëgg a asaf am na ay wax ci wàllu euh, euh, ni nga xam ne noonu la yahood di doon dundee ak yonent bi sallallahu ak coxor gi ci ñoom ak kañaan gi ci ñoom ak bon gi ci ñoom dañ ko bëgg a légui nak buñ démé ba nga xamni kenn mokkalatul alquran ba nga xamni buñ ko asafé kenn dootu ko mëna critiquer waye bu dee ni li fii ak daara yi mi ngi am nga xamni tay ji bo boo jëloon alquran ji ci àddina bépp lak ko ñëw ci daara ji wo ben donga jox ko ben butéelu da ak ay khalima ak kayit mu boot ñaari loxom dugg ci néeg bi nga tëj néeg bi mu gennalat la kalim kamil ba xani baqara min al jinnati wa nas dara du ci mejj dara du ci mejj loolu lañ ci bëgg jëlé waye non lank noo lank ba tëdd ca naaj wa ku mokkal alxuraan lañ fi bëgg a jëlee moo tax ñu ñu indil ay programme yoo xam ni dañ cey dugal leneen ngir xale bi du mën a mokkal alxuraan da koy miin rek wala mu xam ku nii rek nature bi jeex na ñoo lank noo lank ba wut ku ñu lànkale yonent bi nee na woon nag dana mës a ñëw dana mës a ñëw mun waaye maa ngi nii di dem yowmal xiyaam ñoo ñuy kerle kerye loolu yéen lànk leen mooy leen ci alxuraan ak sama sunna si taraktu fiikum ma tamassaktum bi lan tadilo du ngeen reer du ngeen sank ba kero ngeen ngeen may fekk ci wat ñu ne ko lolan la muy kitabullahi wa sunnati moy leen ci alquran programme yi ñu teural ku ci jaar doto mokal alquran mokal alquran ku ko bëgg da ngay dem ci daara ja daara ji nga xamni 4 heures ci fajar wala 4 heures demi alquran kenn ku ne xam waxtu yi nga xam ne ci lañ koy mokkal waxtu yi ñu koy mokkal mooy fajar ak timis njangum timis ak njàngum fajar ci la ñuy mokkal alxuraan léegi bu ñu moderniser suñu daara yii professeurs yi dañuy jàngale ñibbi sëriñ daara bi day jàngale ñibbi léegi fan la xale yi di jànge fajar te alxuraan fajar lañ koy mokkal de njàngum fajar ci la ñuy mokkal alxuraan ak timis keneen ku wax lu wuuteeg lii wax na la lu amut ci waxtu yooy la ñuy mokk boo demee ci réew yi naar yi nga xam ne ñoom dañoo namp arab alquran wacc ci ñom gis nga ñom bala ñom moko alquran dañ leen di internet internet lañ leen def tej leen ci benn barab seen lepp di leen fa fekk loolu lu ko ak jeng loolu sore wut ak jeng ñooñu dañu am ay moyen rek sëriñ daara yi li taxoon yalwaan dik ci seeni loxo ak jeng mu nekk benn méthode loolu lu gar la waxna ko barki dem mani maam Thierno Ibrahima mbake Mbacke tuba Touba da ko daan yalwaan loji agni maam Thierno Ibrahima ti Mbacké sëñ Touba da ko daan yalwaan loo ji gis ba mu ko yalwaan loo dañu ko na nga ma moytul kër gii mu ne kër gan kër mu ne bépp kër goo xam ne kër ceddo la bu fa yalwaan mu ko ceddo dafa bañ sëriñ daara ak donga daara bul yalwaan kër ceddo mukk kon nag kenn ku ne xam na ne yalwaan la koy indi mooy moo fa sës moo fa sës ak it ngir defaru jéngit noonu la mel jéngit lay tax mu mën a am ñu ngi nodd takku sànni sodona Muhammad rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam li koy indi mooy xalel bi day toll fii ma wax day toll ci beqi mu ni du ko fi xaar sëriñ daara bi xam ne xale bii bu ko bàyyee dana sànku ndax benn mën naa mokk alxuraan bu nuppi naru ko fee xaar te sëñ Touba day radiallahu taala anhu daana wax naan képp ku ne jàkk ab xale mu wóor la ni xale bi mën naa mokkal alquran nee na sa càggante tax mokkalu alquran sëñ Touba nee na xawma kenn de waaye yow loolu nga def gisuma lu ko jar ci àddina ak loola ko mën a jaral ci àddina rek nee na loola jëru ko moom la tax xale bi mokkul alquran man koo mokkal nee loolu gisuma ko jar ci àddina àddina li ci biiram jëru ko àddina li ci biiram jëru ko jéng lu ko indi mooy sëriñ daara bi dafa nekk ca ndànd foy foy ga amul ay néeg yu yaatu yu mën a pine gone gi pour mu mokkal alquran kër gi nga xam ne kërum ndànd foy foy la fu la neex jaar dem mu gis ni bu bàyyee xale bi xale bi dana dellu seen kër bu waajur fay amee daa ñu ko delloo si buñ ko dellu si waatee dana dawaat waaye bu dawaatee du delluwaat seen kër day taañaañal ci àll bi day mujj nekk bandi sëriñ daara bi comme amul benn moyen mu daal di def noonu ngir lan ngir pinee ko xale bi wax naa ko benn takk der barki ma ne ko xam nga li lay wuutale jéng ak manoot xam nga li tax bokkuñu bi ngeen defa gën a bon mun naa ma ne ko yow fi mu ne yow takk der nga boo mënoote woon benn waay yóbbu ko police deefeere ko gis nga waajooju bu génnee mu ne ah, ma ne ko dootul a bëgg ci àddina ba keroog yow mal xiyaam te bu la mënee bu la jekkoon bu la mënee rey dalay rey ma ne ko xoolal sëriñ daara bi bu jëngee xalel bi ba noppi ci xale bi sëriñ daara bi du mën a xale bi ngir bëgg mu mokkal jéng ko ngir bëgg mokkal maanaam ma ne ko gis nga bu mokkalee ba ba ba ci daara ji bu demee ba daan dooleem lum njëkk am sëriñ daara boobu la ko yut kaw suuf sëriñ daara boobu la ci gën a tee bëgg kon donga bi xamoon na ni lii ko sëriñ daara bi def bañ ko taxut añaane ko taxut fitnaal ko taxut lu tax ñu bëgg koo firee ni da ngeen di donga daara yi lu tax ñu bëgg koo noonu man amoon naa fi donga bu doon daw bàyyi ma ngi foofu bitim réew di ma dégg waaye magi bàyyi ma ko fi indi woon Mbàkke sant fekk lu jiit loolu sax mag de la magi dooy bàyyam lañ fi jëkk a muy magum jëm am fukki at ak juróom benn jëm kaw ma ko yow xam naa ne mokk alxuraan weesu na ci yow waaye danaa fexe ba nga miin ko lool ma jàngal la téere xam-xam yi bi ma koy jàngal maa ko daan téyelal sama bopp mu war a tari di di wala li xale yi di wax naxasaale di naxasaale aaya yi ma ne ko waxal ca kaw mu bañ ma ne ko waaye waxal ca kaw mu bañ ma ne waaye sëñ diw mbàkke waxal ca kaw mu bañ ma fëgg ko talaat daa jóg ni ma ab kurpañ cëpp wallahi daa jóg ni ma kurpañ tépp ndax gis na ni xool na ma nii ëpp ma ko moo ma sut ëpp ma ko ma daan ne yi génn leen mbaar mi donga yi génn mbaar mi ma ne ràcc tuñ mbaar mi ñu ko léegi nag maa ngi lay ñaan saa bu ma la dóoree na nga fayu de saa bu ma la dóoree na nga fayu waaye wallahi li xale yi di wax naan jaan sewoon waaye danga rang ci biir booba xamul ni jàng naa karaate bima ko ajje benn maajeeri ca ker nopp ba danaka xëm na lu wara mat 15 minutes bim mu ximmili ko maniko serign taril ma deg muni ma ca kaw laay wax kay ca kaw a kaw a kaw ma kon nak waxal yow lay deg mujjina yag daara ji mo fi gëna yaro bim fi daatan joge jang na téré touba yépp ci xam-xam bam dess masalikul jinan ak mawaybul qudus lo rek la fi jottu ta jang bu dee téere arab yi jang na bam muhaddimatul ishiya moom moomee biñ ma indilee doomi baayam biñ gisee ni def naa ci moom ab yar ñu indil ma ñaari doomi baayam kenn ka da doon daw ma jëli ko mu dawaat maak moom mii may wax nii magam ji ñoo ànd di ko wër di ko wër ba onze ci guddi keroog laa mas a wax ak baayam téléphone ci Skype bi mu ne ma pexe moo mën a def bam mu jàng rek rek nañ ma dimbale def ko bi ñëwee fii booba tabaxaguma woon néeg bo xamni xalé buy daw mo man ko fatiyé dama ko jeng ñu ko ñaari fan ñettelu fan ba di ko fekk fim nek nekk di ko jox bindam leppam di ko fa fekk ñettelu fan ba mu ñew waxul bopam ba fekk ma fi ci saal bi yor alquranul karim ñu dama bëgg nga dimbalé ma ngir yalla dindil ma jeng bi maa ngi lay waatal ci alxuraan ni dootuma daw dootuma daw keroog la noppee daw bañ indiwaat fi yeneeni mbokkam xale bu jigéen ba fa ñëwoon fekk man sama daara damay tere xale yi téléphone sama nijaay ak may dégg doomam andil na ma ko fii téléphone a tax ma génne ko daara sama dongo yi dama leen di tere ñu yor téléphone jàng alxuraan laa leen def loo mayuma kenn koo xam ne dinga nga woo sa doom téléphone boo soxlaa sa doom solal saw daal la ñëw ci daara ji may naa nag waxtu wala neex ñëwal ci daara ji boo ñëw ba la neexee bul yëglu bul tàggoo amul problème waaye li tax may def noonu xam naa ko léegi ma ne xale bi comme ndeyam dafa tàggoog baayam yow moom mayatuma la nga woo xale bi téléphone ndax gis naa ni yaa ngi woo xale bi téléphone xale bi tàmbali naa daw xaw ma ndax téléphone bi nga koy woo moo jur daw gi xaw ma mu ne ma waaye man comme damaa nekk Dakar dag may dimbale ma ne ko déedéet mayatuma ko kenn yàlla dogal ab xaritam bu jigéen ñëw fii daanaka nam mel rek bu àndutoon ak sax ay kilifa du dugg ci daara ji ndax melakaanam mu ñëw rocc ko téléphone ndayam paas ko xale bi ba ma ko yëgee ma yëkkati sama téléphone woo bàjjanam ni ko jox ma ki nga àndaloon mu jox ma ko ma ne ko que ça soit la dernière nga ñëwati ci daara ji di woote téléphone di ko jox kenn mu ne ma yow xanaa xamu ne yaayam sama xaritu benn bakkan la ma ne ko nay sa xaritu ñaari bakkan dama ne bu mu amati mu may jéem a jaay làmmiñ wow ma ne ko léegi sax li gën a gàtt daar ji ma la fa gisatee dinaa la duma loola la baay bi mer bañ jële si fi xale yi man leen sama fu te xalel boobu li ma ci daj wallahi keroog maa mag ji biñ koy jëli fii ci sàppoor yi keroog bañ koy jëli ba jàpp ko fële cootu sàppoor yi keroog ñun dañ ñoo yuuxoo sàcc ni ñun dañuy sàcc ay xale daal di daw wër sama oto bi nga xam ne foofu laa taxaw woo téléphone baayam xoolal ma coono bii ma ci daj rek pour lan pour na xale bi mokk alxuraan rek xaw ma bàyyam musuma ko gis bàyyam mu ndaw dong laa xam fa yéeku ma leen weer dara yuuxoo nañ ma ci sàcc maag maag doomi baayam ji ñu àndal keroog sëriñ daara yi da ci li ñu daj ci ci dong daara yi ngir ñu mokkal alxuraan fi sabilillahi taala te am ci waajur yoo xam ni góréewuñu wax naa ko barki démb ba ñu wax fële ci mbirum tribunal ba ca Louga man leen yéen waajur yi ñu am ngor ngeen ndax ginnaaw nangu ngeen ni yéen a wax sëñ xaadim ni ko jéngal gone yi yéen ay gor ngeen bañ bool leen tëj ci kaso bi waaye am na waajur yoo xam ne bu doon ñooma dañuy def wëqet daw rocc ku génn ca ma ni leen wax leen ba tey di suba nee leen ñoo ko santaane ndax yàlla dafa teg ci seenu loos ngeen war a yar seen doom yi même buñ leen dee tëj nee leen ñoo ko def nee leen ñoo ko def yonent bi sallallahu alayhi wa nit ñi dañuy wax naan xam nga tubaab yi dañuy wax ni comparaison n'est pas raison comparaison n'est pas dañuy jéem a comparer yu bokkul dañuy jéem a comparer yu bokkul léegi dañuy wax naan nañ ñu indil benn yax ci alxuraan bu wax ni warees naa jéng ma ne ah loo gisul ci alxuraan rek kon wareesu koo def maa ngi leen di laaj ba xam kan ci yéen mooma mën a indil benn yax ci alxuraan bu ni dee leen lekk ceebu jën mi di nañ ma indil benn yax ci alxuraan bu wax ni dee lekk yàpp wu ñu wàjji suñ borom moom li mu wax ci alquran dana rek kuuloo wasara boo rek wala tusrifoo lekk leen naan leen rek yow nag yaay seet li baax ci sa santé nga tànn ko di ko lekk waaw donte ab yàqarutul ci alquran ni jéng leen gone yi waaye sëriñ bi ci métodam ci xam-xamam may na ko ni xalal bii comme awma possibilité tabaxal ko néeg bu ko mën a pine léegi kon nag naa ko jéng dans un mois rek xam naa ne mu beqi alquran mokkal alquran nga ni ko li ngay def wax ma ko foo alquran ba di ko niraleeg jikko yu bon yoo xam ne su tubaab yi bon yee ko fi doon def di jàpp suñu maam yi di jaay di leen manoote ñu di ko jéem a niraleeg moom di ko bind ci seeni journal surtout journaliste yi surtout journaliste yi journaliste yi ay faux musulman yoo xam ne nii gëmuñu dara ci lislaam ànd ak ay lobby yu nekk ci gannaaw di dal ci kaw alquran ak sëriñ daara yi ay lobby yu nekk ci gannaaw surtout journaliste yi keroog bi nga xamee ni jàpp nañ suñ xaadim journaliste bi jëkk a def bi jëkk a xibaar bi kokki la tudd kokki dañuy jàpp am na kokki xale bu ñu tënk buñ buñ bu ñu euh, jéngoon ca euh, kokki waaye man am naa ci tuut lu ma naqari mooy ñi génn ca waa di dem di jéem a démentir naan déedéet kokki kenn du fi jëng kokki kenn du fi jëng wax naa ko barki démb ci waxtaan bi ma doon def ma ni waxuma la kokki waaye mboolem sëriñ yi nga xam ne ñoo ne fii ci Sénégal amna na ñoo xam man xamna naa leen ñooy seen xalifay bay tay tay tay wallahi alxasim dañ leena a jéngoon bañ nekk ci daara ñuy jàng alquran te man xamna naa leen te ñoy seen xalifay bay tay bu fekkonte ni ñu leen ay délinquant lañuy doon te tay ñoy seen xalifay bay ci kaw suuf mané muy plekeleur muy président muy mbollem ñi nga xamni ne ñoo nekk ci état xam nañ ni kër serigne si sëriñ si am nañ ay daara yoo xam ne dañoo jëng seen donga ya par ñaari donga la ñuy boole di leen jëng lu tax demuñu jàpp sëriñ soosa xanaa kon léegi réew mi am ndey ak amul ndey la te ñoom xam nañu seen sëriñ soosu si may wax seen daara ya dañuy jëng ñoom sax du jëng benn xale waaye par ñaari xale la ñuy boole daara joo xam ne ñaar téeméeri nit a nga fa jënguñu ci lu dul juróomi nit kon kayit sa question moo doonoon waaw pour pas ñaar téeméeri donga fii téeméer beeg juróom-ñeent fukk ak juróom jénguñu ci kenn ñu jéng juróomi yi rek ah kon juróom yi yaa quelque chose kon juróomi dong yi yaa quelque chose waaye defuñu noonu xanaa naa di jël rek yóbbu ca kaso ba directement rawatina koo xam ne moom xamul sax ni et ni ni ni constitution bi day tare jéng xamu ci dara ma ni sëriñ sépp waroon a génn def déclaration ni ah da ngeen bañ koy jéng ñu naaw ñu ne ñun sëriñ sépp suñ daara yi. boo ngeen demee fekk fa dong yuñ jéng ba xam Cheikh Abdou Aziz ad baaxi yi radiyallahu taala anhu bu Seydi Alaaji Malik jamono Abdou Diouf biñ fi jàppee ab sëriñ daara ca Kaolack moom waxante wu ci daa bàyyi bañ ne tey la suuru jugement bi moo tax keroog ba ma waxee ca rajo bi ma ni bu ma doon sëñ Muntaxa bu ne tey la suuru jugement bi daa war dem ndar su demee daa war a dem Louga su demee taxaw ca tribunal ba buñ ko siisee ba atte ko ba noppi mu ne maay tëdd bi Cheikh Abdou assid dabakh bu Tiwaawan bi nga xamé ni jàpp nañ ben serigne daara ca kaw la xamul serigne daara ba de te serigne daara bobu nekata jamono bobu sax mom ab murid la waye mom dégg na serigne daara bi ni nga xamé ne noonu la daara am di gëna a yafay mokkale alquran mu dégg ni jàpp nañ ab serigne daara da bàyyi ba suru sisma ba mu ñëw kaw la ba ñu siisee waaji ba ne nangami at lañ koy tejj Cheikh Abdou assid dabakh da ni ñokke jóg taxaw da ni léegi de constitution bi mayna ma dem tëddali ko penam léegi mom na delloo ca daara ja jàngale alquran alquran du taxaw man man Abdou assid ma dem tëddal ko pen bi fa la wax de yam fa wax ja yem na dem te daaraam ja jàngale ci man Abdul Asis ma tëddal ko peenam keroog la Abdou Diouf mu a jàpp sëriñ daara keroog fa la wax ja yem alquran mi nga xam ne sëñ Tuubaa ne ne kitaabun bihi narjoo min allahi rahmatan wa nanjoo bihi dunya uxra min karb man sëñ Tuubaa sama yaakaari addina ju àllaaxira ñu naa mu ni kitaabun alquran mii la kitaabun bihi narjo minallahi wa rahmatan dunya wa uxraa nag sama yaakaari addina ak ju àllaaxira man sëñ Tuubaa ci alxuraan mii laa ko def mooy sama yaakaar moo tax mu ni képp ko xam ne yor nga xale xam ne xale bi mën naa mokkal alxuraan nga sàggane ko ba mokkul alxuraan nee na gisuma lu ko jar ci kaw suuf te wallahi wax na dëgg radiyallahu taala anhu sayidna omar nee na woon radiallahu taala anhu inna allah ay yarfahu bi hadha al kitab aqwaman wa yaddahu bihi al axirin nee na téere ngi ni boo xam ni yàlla dana ci teral as gor ñu di ko tungoom di ko yëkkati ba yow mal xiyaam mu tàbbal ko àjjana mu ne waaye téere ngi nii boo xam ni yàlla dana ci toroxal as gor ñu di ko nappaaje di ko dëggaate ba yow mal xiyaam suñu borom yóbbu ko safara ñooñu mooy ñan mooy ñii di xeex sëriñ daara yi ñii di dal ci kaw alquran mboolem ñu nga dégg ñu naan war nañoo dépassé jéng ak civilisation passé na ko dañoo ami moyen rek ñu koy wax ñëpp dañoo ami moyen rek bu jëkkoon kokki gi moo nekkoon upp wantaay moo nekkoon upp wantaay bi ñuy tiitalee gone yi ci kër yi bu la sa doom na la jël danga ko naan yow kokki laa la jëme mu ne nuut yaru ndax turu kokki rek booba nu kokki meloon kon nag bi kook ci avancé ci ay développement ba am benn béréb boo xam ne tabax nañ ko ba mu ñoŋ nga xam ne tuddee ko daaru salaam nga xam ne dong nga bu daw ñu mën ko faa dugal téye ko fa ba mu mokkal alquran loolu koy sëriñ daara bu yayoon bu sañoon bu ne am ko bu sañoon bu ne am ko man contre ma kii waka waaye nag dañoo waroon bañ ne eh, kokki la ñuy jéngee nangam nangam ñu ne ah ñun waa kokki day weesu lañu jëng waaye nag ànd nañ ci jéng de ndax moo doon solution bi régler problème yi kër sëriñ sii laa foo fi dem muy Touba muy Tiwaawan muy fenen foo fi dem da nga fa fekk dong yu jéng maa la ko wax te nii ma ko xamee la ko état xamee nii ma ko xamee la ko état xamee noonu la ko procureur xamee lu tax dem demuñu jàpp leen lu tax jàppiwuñu leen kon xanaa ñu jàpp sa euh, sëñ ke képp ku di murid dana la woor ni sëñ Touba lañ tëj ci kaso bi moom ndax sëñ Touba lañ ko tudde ca la seigne touba nekkon la nekk fonction bi seigne touba amé won mom la amé moy jangal alquran fi sabilillahi taala fonction bobu la amé kon nak seigne touba lañ ci kasso bi seigne touba lañ tëj ci kasso bi ñoo nga xamni dañoo waru di jema and ak touba bi civilisation l'islam ko gëna xam ñepp sëriñ daara bu sañon bu ne ci ay étage la say dong di dëkk di lek yap wata bor waaye ana moyen man damaa dama damaa jippi sax nekk fi naan état dafa dafa dafa dafa favoriser dong bii bàyyi bële te ñoom ñëpp ay loolu sax dama ko dama ko dama ko ignorer sax parce que man la yàlla xam doy na suñ borom daa waxoon ci alxuraan ni suñ borom daa wax ci alxuraan ni fala taqranukum al ayatu dunya wala yaqranukum bilaahi xarwa inna seytaana lakum adun fa taxishu adwa nee na bu ngeen demee ba développement wu addina war leen saytaane waraakoon bi war leen mu ne saytaane si num la de jàpp leen comme noonu jàpp leen comme noonu lii may wax yéen ñëpp man ngeen ko vérifier maa ngi leen di waatal ci yàlla ni addina laa wax de addina waxuma Sénégal addina laa wax senegal njaay gii la fi sirrub al sirrub l'islam des waaye Sénégal njaay gii dong dong dong moo fi ëpp lu ñuy wattu alquranul karim ci addina bi laa wax de addina bépp gisuma ko man alquran ci waa Sénégal mel ni réew mu man alquran waa Sénégal xawma ko addina bépp nag vérifié te ñooña ñooña effort buñ man ñi ngi koy def ci alquran suñ réew mi képp suñ réew mi dong daal ngay gis réew moo xam ni sëriñ daara yi dong dong dong ñoo nangoo song sonn ci alquranul karim suñ réew mi képp nga koy gis sëriñ daara yi rek waajur yi alquran jërulu leen dara état dama ko jëlale sëriñ daara yi dong ñoo nangoo sonn ci alxuraan di nab nabi mu jaral leen lu nekk bis bu ñu wax ko fii donga yi ni leen man dama daan tukki léegi nii rek bu ma tukki woon réew mu ma wàcc benn conférence donc bu ma ko defee lu gàtt gàtt ma récolté dinaa mën a récolté deux millions trois millions ñëw tëdd lekk ko ma ak sa njaboot kon lu tax ma xëy bàyyi loolu lépp topp alxuraan alxuraan moomu kenn ku ne da nga ci am masuliya suñu borom daax yonent bi sallallahu alayhi wasallam ni ko wa innahu la dhikrun lakka wa li xawmika wa sawfa tusaluun alxuraan mii mu ne ah mu ne ko yow laa ko jox yow Muhammad yaak saw xeet mu ne ah mu ne ah kenn ku ne am nga ci responsabilité responsabilité partagée la moom alquran mu ni waaw mu ni kenn ku ne dinaa la laaj sa responsabilité bi nga amoon ci alquran est-ce que assumé nga ko wala assumé woo ko <coughs> yonent bi sallallahu alayhi wasallam la ko suñu borom wax ci alquran <coughs> bu keroogee yowmal xiyaam suñu borom dana ni muudu mbay caam yow de amoon nga masuliya responsabilité ci alquran ndax assumé woon nga ko mu ne ah man de wax dëgg yàlla yoruma woon sax daara di jàngale waaye nag xamoon naa ku ñuy wax Moustapha Mbaye Sam mu yor daara ju muy jàngalee fi sabilillahi taala daanaa def léeg-léeg mu yónnee fa sama addiya de ñu ne ko yow toogal ne yaa ko doon jàngal alxuraan yéen a yem Moustapha Mbaye Sam yóbbu lu la to lu tal nit yow we yow ko safaal yow masuuli bi nga amoon ci alxuraan ndax mu ne ah man day wax dëgg yàlla xamoon naa ne sax am naa masuuli ci alxuraan am naa ci responsabilité wax dëgg yow nag dama doon yaxantu mënu ma woon a toog di jàngale waaye dégg naa ko jox Moustapha Mbaye Sam sampoon daara ah daanaa def may weeru dee rek ma yónnee fa sama addiya ñu ne ko yow demal toog ne yaa doon jàngal alxuraan yéen a yem ainsi de suite ainsi de suite wa innahu la sikrun laka wa li qawmika wa sawfa tusaloon mhm. bu keroogee ba ci jigéen ñi keroogee suñu borom ne ne ah, yow maam bu sa ñas yow responsabilité bi nga amoon ci alxuraan noo def ak moom mu ne ah man de wax dëgg yàlla man day daw ma jàngale ndax yuru moon daara munu moon a jàngale ndax yittey jamono waaye nag a ah, déggoon na sëriñ daara bu ñox Moustapha Mbaye Sam mu samp daara de mayit may def rek lu ma am xomp tuuti jox ko ni ko defal ma ko ci daara ñu ni ko demal toog yàkku doon yéen a yem wa innahu la sikrun laka wa li xawmika wa sawfa tusaloon suñ ne dinaa leen ko laaj yow mal xiyaam de kenn ku ne yàlla dana la dij yow mal xiyaam ni la noo defoon ak sama téere bii di alquran kenn ku ne ci ñun moo tax suñu borom ñu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam fastamsik bi lesi uya ilayka innaka ala siratin mustaqim yow Muhammad mu naa mu ne ngoyal ba mu dëgër ci téere bi ma la jox mu gis nga téere bi ku ci ne mu naa mu ne yaa ni ci dëgg innaka ala siratin mustaqim bokk yi li wax yàllaa de suñu borom rabbistu jàll mu ne Muhammad mu naa mu ne ko téyel ci lii ma la jox ku ci nekk yaa nekk ci dëgg loolu tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam sañ a taxaw ni sañ a taxaw ni xeet wi xeet wi addina addina ñu ne ah mu ne sëriñ daara yee ci gën fii la yonent bi sukkandiku ba wax ko suñu borom moo ko wax ci alquran ne ko fastamsik bi lasi uya ilayka innaka ala siratin mustaqim ma nga sóoratu suxraf jàppal ci téere bi ma la jox bu mu laal suuf mu ne ko maa ngi lay waatal ni boo ci jàppee yaa ne ci dëgg yaa ne ci yoon wi nga xam ni moo jëm si ci man yàlla ëllëg yow man xiyaam moo tax sallallahu alayhi wa sallam nag toog xool. addina bi ba addina bi daj mu seppali leen daal ni addina ba addina daj sëriñ daara yee ci gën xayrukum man taallama alquran wa allamahu xaasa addina ba addina daj mu naa mu ne sëriñ daara yee ci gën sëriñ daara boobu lañ jël def ci kaso bi ki gën ci addina léegi moom lañ jël dugal ci kaso bi muy xaadim gi moom lañ jël dugal ci kaso bi suñ borom dañuy wallasina yumassikuuna bil kitaab wa qaamu salaata inna laa nuddihu ajral musliin man yàlla ñi mooy ci sama téere bi ba téere bi laa lu ñu suuf ñi mooy ci sama téere bi ñi jàpp sama téere bi boole koog di taxawal waxtu yu julli juróom suñ borom ne a gaañaa ngoog gis nga ñooñ seen jëf lum tuuti tuuti tuuti duma ci sànq dara dara yowmal xiyaam danaa leen fay ba mat ca layam mu ni déedéet ndax mu ne lu tax mu ni ñoom ñooy almusliuuna almuslihuuna fil ard mooy sëriñ daara yi almuslihuun mooy lan mooy ñi nga xam ne ñooy éduquer doomu aadama yi ci kaw suuf almuslihuuna fil ard ñoom ñooy defar damay fara di wax ni sëriñ daara wax naa ko ci waxtaan wala weesu sëriñ daara dafa amee jikkoy benn ci jikkoy yàlla yi sëriñ daara dafa amee jikkoy yàlla jikko yàlla jan mooy yàlla du gedd yàlla du xeeb yàlla du yéem gis nga boo gàdd bon bokk bon ànd ak bon di dem waaye nga xëy ñëw ni yàlla damaa bëgg a baax doonte ñaari fan moo la dese ci sa dund gi yàlla ne accepté naa la kaay baax d'accord na ma ak yow kaay baax gis nga yàlla du gedd sëriñ daara noonu la mel sëriñ daara bi dangay gis koo xam ne day am dongaam bu délinquant doomam jot délinquant doomam jot délinquant mënu ci dara état mënu ci dara mu xëyit ko sëriñ daara bi sëriñ daara bi du gedd da koy wax andi sëriñ daara bi jël xale boobu di ko fosone di ko fosone ba mu gën ndayam ak baayam ba mu gën ndayam ak baayam alors sëriñ daara soosu lañ jël di leen dugal ci kaso yi c'est parce que nee nañ ila axir ila axir kenn mësu koo dégg cheikh ahmad bamba nag nee na woon laqad xaral la inu naasa wastaxlo bi maa yujuurul baxsa wastaxlo bi ili maa laa yanfau fi lxabri wal asri maa laa yadfa Sëñ Tuubaa ne jamono ngi ñëw doomu aadama yëpp daañu sóobu ci lefum sàkku xam-xam boo xam ne amalu leen njariñ safara rek leen jëmee ëllëg yawmal xiyaam muy ndax xam-xam boobee jàng buñ duggee ci seen bàmmeel mënu leen a fegal ayu bàmmeel mënu leen a tee texee di du leen njariñ dara ci seen bàmmeel te yawmal xiyaam bu leen yàlla di fang munu leen a jariñ safara mënu leen a jañal safara xam-xam boobu ban xam-xam la xam ngeen ko xam ngeen ko kenn ku ne du wax ni njàngum tubaab baaxul ah kay waaye wolof njaay nee na tegale bu jengee ca ba jiitu la ñii nga dégg ñuy ñaawlu jéng di ñaawlu di dal ci kaw sëriñ daara yi ñum doon jàngkati tubaab yi xamul dara ci alxuraan waaye ñi xam dara ci alxuraan duñ ko ñaawlu mukk xam nga lu ñuy wax nañ jéem solution bu ko gën waaye duñ ko nirale mukk ak koy jàpp jaam di jaay nañ wut solution bu ko gën loolu ku mën na koo dégg man naa ci man d'accord naa ci mën naa wax ni xale bii may wax nii xale bii sant Mbàkke muy Mbàkke Mbàkke yu ma doon wax noonu daanaka ba ma ci jógee ba tey nangatuma sonn ci benn gone bu dawatee ñaar yoon sax ma ni bàyyam jëlal parce que man as gor gor laa ci xam dawatee ñaar ñett sax ma ni jëlal sëriñ daara yi bari ñu ngi bëgg mel ni man mooy yenn coono yi dootu ko jaral parce que xam nañ ne am na ci waajur ñoo xam ne dara ci ngor amuñu ko dara ci ngor amuñu ko dangay ngay ci seen doom ëllëg leneen fekk la ci ñu raxasu ci mel ni waaye nee ñee def loolu moo di si gor looloo di si gor mhm. looloo di si gor ah, bi nag suñu borom nee na innaa nahnu nazzalnaa zikra wa innaa lahu lahaafizuun maa ko wàcce maa koy sàmm borom xam-xam dañuy wax ni ni yàlla di sàmmi alquran du caag day wàcce rek yoru yat déedéet yàllaa ngi sàmme alquran ci ñett ci sëriñ daara bi ci donga daara bi ci way juru daara donga bi ñett ñi ci la yàlla di sàmmi alxuraan donga daara bi nangoo jàng si ak sëriñ daara bi toog nangoo jàngale ak way jur bi nangoo jël doomam yóbbu daara ci ñett ñi la yàlla di sàmmi alxuraan ba ba keroog bufti bi di wal nag ñett ñi duñ fi jóg mukk ñett ñi duñ fi jóg muk am na ñoo xam ne bu ñu leen doon rey di leen daggate di leen lakk du tee doon ay sëriñ daara la ñuy doon ba yow man xiyam am na ñoo xam ne boo leen doon rey di leen lakk du tee danañ jël seen doom yóbbu ca daara ja mu jàngi alquran ñett ci la yàlla di sàmmi alquran inna nahnu nasalna sikra wa inna lahu la xaafisun am na ñoo xam ne boo leen doon rey di leen daggate di lakkit seen doom daara rek lay dem sëriñ daara rek la ñuy doon jàngalekat alquran rek la ñuy mas a doon am na ñoo xam ni loolooy li am loolooy li am dafa am benn xakim bu ñuy wax Lukman, Luqman Luqman lu mu waxoon doom ja yaa bunne aqimi salat wa bil ma'ruf wanha anil munkar waaye nag wastabir allama asabaka de gis nga ko lu tax inna saalik min asmi umur sur Luqman dafa am doomam ni ko doom doom naa mu ne ko maa lay yóbbu daara jan daara mu ne ko aqimi salat taxawalal julli na nga defar sa bakkan bi yar sa bakkan ba bu julli jotee nga jox julli xaqam aqimi salat ca mu ne ko dedet wa amur bil ma'ruf del def lu bax te diko diglé wanha anil munkar bañal lu bon te diko téré mu ne ko waaye gis nga lii ma la sant mu ne ko jafé na de ndax fañ koy amé كان دوكو ام تي نوف لاي كون نك واصبر الا ما عذابك داخ ان ذلك من اسم الامور بوكي داخ نيت من نا خم لو باخ با مانا راني لو باخ لو بون تا جانغوت داخ نيت من ناي ديغل لو باخ دي تيرا لو بون تا جانغوت موتاخ موني كو فان كوي امي فا غاي جيلي خم خم بي تاخ nga مانا ديغل لو باخ دي تيرا لو بون فوفا نيهوت dafa metti wax naa ko sama dong yi fii ni leen yéen ñett rek laa leen defloo ñett lekk jàng nelaw ñu ngi nii moom dong la ñuy liggéey ci daara ji di ñett yi dong man saab dong dimalu ma tool rootaliwu sama satale gi may jàppe sax maa koy duwel sama bopp deflo ma kenn lenn ci ñoom lenn rek laa leen defloo mooy jàng lekk nelaw jàng lekk tëdd nelaw jeex na man leen te teewul yéen a ngi nii ñàkk jom ci njàng mi ñàkk jom ji mooy ay ponk lañ ci yoo xam ne nii li fi ñëwoo fëgg leen fajar ni jóg leen jàngi duñ jóg su ko defee ñu may ree mën leen loolay la am léegi cërewul daara ji neexul ci ñoom taxul daara ji neex ci ñoom de ñett yi ma la dong la fi dong di liggéey mooy jàng ak lekk ak nelaw waaye taxul daara ji neex ci ñoom xam nga lu ko waral yow fajar wara tari juróomi isi bu fekke da ngay bekk wala wala wala wala wala yooyu bakkan bëgg ko il faut nga manan ci ci gone gi mu dor ci nangoo tok waxoon naa ni comparaison n'est pas raison dañ wax ni donga bi waroo ko jeng da nga wara fexé mu bëgg la yonnati bi sallallahu alayhi wasallam xolal ma yonnati bi ñi jema comparer ak daara yi sallallahu alaihi wasallam moy sahaba yi ko topon di ay ponkali magi jëm xam lu baax xam lu bon dana ci duma kenn du waxna legi fi do nga bo xamni yaakar mënuma ko duma motax ko mu fay sallallahu alaihi wasallam ponkal yoy xam lu baax xam lu bon dana ci duma kenn nan ko defal li da bok ak donga bi nga xamni ni gone gu ndaw la xamul lu baax xamul lu bon mom li bakkanam bëgg nga la xam leg ngay jubanti bakkanam bobu tax nga eh, ciow kab yar ni defal nangam ñu jema compare yu bokut man li ma dëkkuwul mooy gone goo xam ne nii mokkalul ñu di ko duma ngir ñàkk mokkal dëkkuwul ma xaleel bu mokkalul da koy pine man sëriñ daara yi fii ñaari sëriñ daara kenn ki bi mu ñëwee dafa jàng xam-xam ndax nit ñi dañoo bokkul donga yi am na xaleel boo xam ne boo ko dumaa dootu mokkal mukk jantu keroog dootu mokkal waaye boo ko pinee mu mokkal am na xale boo xam ni boo ko pinee du mokkal lu koy mokkaloo duma ko wala nga dik koy duma noonu laa amee ci sëriñ daara ñoo xam ni dañoo naqari deret bu xalal bi mokkalul duma rek lañ ciy xalaat man sama daara ma fay tere duma mu fiy jëw jàng xam-xam bi mu gi ma ne ko léegi mën toog jàng xam-xam waaye yow dootuma jàngaleel mu xaar loolu kon moom mënta toog te jàngaliwul kon day dem takki bagaasam dem man moom samay jàngalekat dama leen di tere duma d'accord ma xale bi mokkulul pine ko rek pine ko moo tax daara ji yëpp mel nu man maa fi jubbantee man maanaam maa fi saño duma laa bëgg wax mel na man du soxna yi du kenn ci dongo yu mag yi kenn kenn mel na man ndax xale bi lay tax ma duma ko bitis bu mag lay def te it duma daal di jóg rek duma ko de déedéet déggoon ngeen fii benn xalel boo xam ni sëriñ Saliou lañ ko tudde magum jëmm la magane nga di jàng moom xale yu ndaw yi nga xam ni eh, ay ay ay juróom-ñaari at lañ jàpp jàpp juróom-ñett seen yére yi seen yére yi ndaw yi ñuy sol xam nga mag da koy mën a jiitloo flottant yooyu mag da koy mën a jiitloo doo ngay mag yi di ko jiitloo ma tere leen ko ni ma gisati ko laal yére yi xale am ci ko xam ne dafa dëgër bopp defaat ko ma duma ko ñu ma ko duma ñu woo ma fële ca bàqee ma war a taxaw ku fi bàyyi ko dama taal auto bi gin rek xam nga num def magasin bi may denc dund bi gaali gone yi nekk ci moom la taal pour wax la donga magasin bi la taal awa may ag bàq ñu woma ni ma magasin baa ngi lakk mané ne ah, man duma du ma ngeen seet ngeen ko fayé wa koñ bi dal di ñew fay and ak gone yi ñu fay ba nupp ma ñu nan ah xamna na démé ñaari um ko doon xex xamna légui biñu riso rek am benn ferñeent ndax loolu yàgg na am euh, mu mu tàkk ñi ni déedéet courant bee ko lakk ma daan ni saa baaraam ni gis ngeen góor sële moo lakk magasin paa yi fii dañoo toog ci suuf ni ma yow looy wax ni lii ku ko ñeme ci àddina ma ni moo lakk magasin bi de man de bu ngeen ma jox alxuraan ma waat ko kële la ah ku ni ñibbi ma daal di ñëw toog woolu ko mu ñëw ma ne diw mu ne ah, ma ne ko bàyyi mu ne ah, ma ne ko yàlla ko magasin bi de duma la dumala duma la xas duma la saaga nag man xamna ni yalla ko mangi seen legi nak man mati ci dencoon sa dund bu ma di dundale man na lako waye gis nga lima la meunta bal moy galu gone yi defon seen yére yi te nga lakk ko munuma lako bal lolou loolu dong ko li lako yalla di fayé nak moy yow bo ligé bo jang alxuraan ba ñibbi sa kër bay di nga tabax kër dugal fa say bien tak say soxna yalla xey ni fuf kër ga nga defaat ko mu ni fuf kër ga ba kérok limu mu nga lakk seeni yére mat jógal dem mu ni ñokket dem ñu toog ñetti fan maçon bii nga xam ne mooy tabax jumaa ji ñëw fi mu woo ko ci pet ñu ko damaa bëggoon ñu ànd dem ci sëñ bi nga defal ma intervention néexul ba néexul maa lakk magasin bi te man li ma sëñ bi wax moom loolu moom xalaatu ma ko ci sama àddina léegi daal nañ dem rek nga balul ma ko àq bi mu ma ne ko man man nee naa la sama wàllu baal naa la ko léegi kay ni nga def mooy dem ca donga ya balu leen bañ baal la mu soog a dem ca donga yi balu ko bañ baal ko te pourtant bu defoon lu wuuteeg lii maanaam bu fekkoon ne daa génn tooñ nit ci mbedd mi loola duma ko ko bal dama koy duma kon sëriñ daara bi objectifam du jàpp xale bi di ko finnaal wala di ko duma déedéet xale bi donga daara ci ay bétis la dëkk loolu ku ne xam na ko yàgg na ko wax donga daaraa ki bang bangam ku ne xam na ko léegi nag méthode bi sëriñ daara bi jaar pour yar ko boobu bu ëllëgee mu jariñ boppam jariñ borom jariñ moroomam jariñ ay bokkam jariñ ay bokkam ah, li may wax di tudd sama daara bari na waaye comme man loolu laa dund te woor na ma ne li ma dund moom la yeneen sëriñ daar yi di dund rek sëriñ daar yi di dund am na fii ñaar ñoo xam ne mag yi jëmm lañ biñ ma leen di indil ëpp nañ fukki at ak ñeent yàlla dogal ñu ñëw ci daara ji bottu alxuraan daara ji li fekk mokkul alxuraan doo dem ci say bokk waaye boo mokkalee ma bàyyi la ngay dem ba ko dikk dem ba ko dikk tabaski jot tabaski bi nga xam ne biñ mokkalee rek biñ wàccee seen wàcc bu jëkk rek ma yabal leen ñu dem tabaski ji gis nga bañ tabaski jee ba dellu siwaat ay bés lañ fi am daw ma dem jëli leen seen bàyyi nag di as gor ni ma man ba ma la ko joxeel ba leen ko laa ci génne sama lox loo ci def baax ma dem jëli leen ñu ñëwaat am fi semaine daw ma seet donga bi nga xam ne moo ci mag te xam naa ne mooy xelal kenn ki li tax ñuy daw bañ ma séenee ma di leen jël si seen auto bi rek daw dugg ci koñ ma wo seen bay ni ko légui waxal ma sa soxna nee ko buñ toogee ba ay boor yi 9 h ba xalé yi ñew ci kër gi nar a fanaan rek nag ma wo lu mu guddi guddi na ñew buñ toogee ba guddi rek mu wo ma mu ñew gis nga bima accé ci koñ bi ngor si nga xani moy dawlo morom ji and ak mom di daw man ko seen ci benn poto lampe mu taxaw ak moroomam ci koñ ba sol ab kap ak pantalon baraye oto bi nga xam ne moo topp ci sama gannaaw moom laa seen mu sànni ay lumière am rek ma seen ko ni donga yi kële di diwa donga yi ma àndal kële di diwa ñu ni ma laa diw daa ñeme lii man leen baax na nañ leen dem waaye gis nga bi ma yootee ci gannaaw ba nikk ci loxo bi rek bi ne gees muy man rek daa fil kat bi mu soloon mu dali ca àll ba mu gaaw dindi baraaye bi ma jàpp ci loxo bi foton dugal ci oto bi delloosi ma ñëwee ma tëj ko ci benn néeg lépp di ko fa fekk falaa koy fekk jox ko bindam mu boole ko di nafar di di di di di di di di beqi mais di ko jox xam-xamam foofa weer laa ko def weer ma ñëw di ko jox si bind mu ni ma maa ngi wal maa ngi lay waatal ci sëñ Tuubaa ni bu ma xamoon ni bu ma dawee lii ma ciy fekk du ma daw léegi damaa bëgg nga baal ma rek dootuma génn daara ji li fii ak joxoo ma ndigal ma ne ko ah alxuraan nga yor de ndax xam nga li ngay wax mu ni waaw waaw maa la ko wax ma ne ko bisimilah ni kat ci bi. ba léegi mi ngi nii ci daara ji di jàng xam-xam boole koog di beqi bu fekkoon ni waajur wa deful noonee mu def dama cay daal di selangul rek bu ko defee njàngam yàqu njàngam yàqu te fi mu ne lim lim ci téere xam boole koog di beqi kon xalel yi faaw ñu dimbale leen ci côté boobu xalel nit ñi dañu faral di wax naan waaw euh, nit ki moom euh, léeg-léeg nga gis ko xalel boo xam ne ni day nekk ci lu neccoo naan yàllaa ko ci xiir ma ni déedéet ko ci xiir ngay wax da ngaa war dox diggam ak saytaane yàlla xiiru ko ci yàlla du xiiraate ci lu bon déedéet déedéet yàlla xiiru ko ci xale boobu may wax nii ndayam bi mu tàggoog papaam wallahi comme ni ma koy wax di tere di tere téléphone fii ci daara ji fi njëkk a tàmbalee ma moom mooy ndayam daal ñëw ci daara ji may ko téléphone xam nga nu def fi muy toog buy jàng fi muy toog buy jàng pour wax la rek donga daara fi muy toog buy jàng moom la gasum pax bu téléphonante ndey ji ba noppi suulaat ci téléphone bi toog ci waaye nag comme man li ñuy wax naan ab sëriñ daara cokkeer ci mbooy la ab sëriñ daara ko donga daara cokkeer ci mbooy la mënta réer morom ja xam naa ni gone yor nañ téléphone ci daara ci sama jarbaat boo xam ne mag ndeyam ñoo bokk ndey ak baay moom laa jëkk a woo mu waat ci yàlla nii téléphone niwul ci daara ji ma woo xale boobu sant loo bii may wax mu waat ni yorut téléphone ci daara ji te man xam naa ne téléphone ci daara ji xam nga nu ma def dem Sonatel daf maa jaral dem Sonatel ñu localiser ma ko ba waa Sonatel xamal ma ni ma téléphone baa ngi ci daara ji man leen ndax mën ngeen ma cee jox ñetti numéro yim mu rek ñu ni waaw ñu jox ma ñetti numéro benn bi bi ma ci wootee sama doomi nijaay laa jot directement waaw diw. numéro sàngam ko la ci doon woo mu ni ma diw diw moom mu tudd maa ngi ndeyam ñoo bokk ndey ak baay sama jarbaat la mi ngi ci daara ji di jàng ma ni baax na ma jot wootewaat ci beneen numéro jot nday xale bi ndekam nday xale bi xàmme ne sama baat rek ma wax wax mu ni ma du man da ngaa jaawal ma ma wootewaat beneen numéro jot rakki xale bi rakam ju jigéen xam nga nu ma réglé mbir mi mooy dama leen woote ci ab néeg daal di dem ca ginnaaw kër ga wut yotu foxtan wu wow xam nga yotu foxtan wu bu dalee benn yoon rek ma daal di dugg si ci néeg bi rek yooxu fëgg ko kenn ki yat wi ni tëllët ma ak ci des ni na fa bi génn mbaa ngeen dem bàq ñu ni ma sëñ bi taxawal léegi téléphone bi génn moo ñu gënal de bàq ya ñu daal di génne téléphone bi jox ma kon donga daara bi ak méthode yi ngay jaar pour yar ko xaleel yi léegi ni ñu amee xel ni ñu yewwoo ni ñu amee fit kenn ku nekk ak loolu borom xam-xam yi dañ ko wax boo gisee yonent yi bu leen yàlla di sàmmloo jublu ci rek sàmmloo leen ay xar kese déedéet daa bëgg wax ni nii nga xam ne xar yi noonu lañ bare wuutee ko noonu ngeen war a sàmme ay nit nit ñi noonu lañ baree wuutee ko am na koo xam ne nii boo yeddee mu bàyyi am na koo xam ne nii boo ko yaraangalee mu bàyyi am na koo xam ne nii boo dumaa mu bàyyi am na koo xam ne duma dong taxul mu bàyyi danga weesook weesoog moom duma <clears throat> muy doog a ba droit de l'hommiste yii nga xam ne jëmuñu fenn di ñu indil ay xalaati Molière ak Victor Hugo bayil ñu fi xalaatu suñu yonent bi sallallahu alayhi wasallam sallam luñ ñu lo ñu ni xalal kenn waru ko duma wa setal ma ji wax xalal waru ko duma seetal ma ji wax rek kon weddi nañ wax yonent bi sallallahu alayhi wasallam sallam ngi ni bo xamni ni abdullah ibn amr ibn as moko solo radiyallahu taala mu ni yonent bi sallallahu alayhi wasallam de da waxon ni awladukum bis salati wa hum abnaa sab'i sinina wadribuhum alayha wahum abnaa asr yonent bi moko wax sallallahu alaihi wasallam sallam kep kenn ci yeen ku am dom bu xasse am juróom-ñaari at tambalil boy julli ne ko kay ni julli bu taxaw ci sàppe sa ba mu baye fa sàppe sa daw dem sallallahu alaihi wasallam ni bu mu tax nga duma ko de bu ko yedd de bayil rek mu ne waaye bu xasse am fukki at nga ne ko jogal julli te julleewul nañ wara julle tek julli jox julli haqqam sallallahu alaihi wasallam ne nee wutul yar duma ko fofu la duma xale joge wa ndax nit man na julli te jangu alquran kon sëriñ daara bi sax même bu fekkoon ne day jàngal gone gi mu xam ni xale bi méthode bii lii tax mu mokkal bu mokkalul bind bi ragal na yar boo ko dumaa dana mokkal nga duma ko ñaari yar pour mu mokkal loolu ci ne loolu ci ne Cheikh Ahmad Bamba nee na woon radiyallahu taala anhu atlubu wala tadjar min matlabi mu ne fa aafatu taalibi an jara loolu la sëñ Tuba wax sëñ Tuba nee na yow doo nga daara bi mu ne mu ne toogal te daara ji jàng xam-xam te bàyyi baj bajee juut juuti bàyyil daw mu ni gàkk-gàkki kuy jàng xam-xam gàkk kuy wut alquran gaaf gaaf gi ci ne mooy muy baj bajee ka daw baj baji ak daw nee na loolu mooy gaafu kuy jàng alquran gaafu kuy jàng alquran xale lii buñ demee seen kër waajur yi seen moroom yi ñu dajale ca koñ ba nañ mel noonu la ñuy bëgg ñu mel ko te seen waajur yi dañoo bëggoon ñu wuuteeg ñooñu aw melokaan ndax xale boo xam ne mi ngi ci koñ bi nekku fi dara lu dul football sàcc téléphone jàmbur nangam nangam kooku bañ doomam mel noonu mu jël ko yóbbu ko ca daara ja léegi bi mu wàccee sëriñ daara bi yebal ko mu dem kër ay waajuram ñaari fan ñett yam fay am mu gis fa ñooña boo gisee xale yii ma doon wax léegi te santuloo ma nangu cee sonn mooy seen waajur bi ma leen joxee nanguwul sax ñu ñëw ca kër ga man maa man maa wax gone yi daara ji yëpp ni leen képp ku xës wàcc benn yoon danaa la may ndigal ngay dem ci say waajur ak a ñëw loolu maa leen ko xës wax ab sabtel leen ko di leen ko nangu di leen ko defalit biñu wàccee ñoom ñëpp nekk nañ ci daara ji ba wàcc ñu seen kër biñu wàccee seen wàcc bu njëkk kenn ku ne ma jëndal la yére jox la paas ne la demal julli ji te ñëw waaye gis nga bañ demee julli ji ba giseek seen morom yi foofee biñ dellu siwaatee ay bis lañ fi am daw bu ma woon sama tànku tubay fi toog bay jàng xam buñ fi tok bay jang xam-xam école arab yi nak ma ngi koy wat ci yalla ni cipp ko xamni ñi ngi lay lo ni ku fa nek da nga mok alcorane dañuy wax lu leen neex kenn du fa mok alcorane ku bëgg sa doom mok alcorane yobbu ko ci daara yi bu dee internat yi tamit ñoom baax na danañ mokkal le alquran mokkal bu rafet waaye yar amu fa nag ñi ma ci gisagun moom yar amu fa wax dëgg yàlla te sëñ tubaade yi da daan def buy joxe njabootam daara day wax ni soo demee na ci ñaar daje mu ne mu ne alxuraan akub yar na boole am xam-xam ak amub yar ñu ni waaw mu ne bu la wóoree ne ñaar yi munu daje mu ne mu ne bàyyil benn bi te def ci benn mooy bàyyil xam-xam bi te defal ma ci yar sëñ Tuubaa daan wax sëñ Tuubaa daan wax bu ma saan di joxe njabootam day wax ni bu la wóoree ne xam-xam ak yar munuñu fee daje mu ne bàyyil xam-xam bi te defal ma ci yar ab yar moom daanaka ko ko am ku ni xaw nga mën ngaa wax daanaka ni am nga xam-xam. ndax sayidna omar radiallahu taala anhu keroog ba mu ñëwee ni yonent bi sallallahu alayhi wasallam suuratu bàqara mënuma koo mokkal yonent bi noo koy def mu ne teg naa ko fi ni tege waaye nag fas naa yéene lu mu digle ma def lu mu tere ma ba sallallahu alayhi wasallam ni ko yow mokkal nga ko looloo ko taxoon a wàcc looloo ko taxoon a wàcc mokkal nga ko mhm. looloo ko taxoon a wàcc kon alquran a ngi noonu alquran moom yi nag moom lañu sunu borom rabbi su jàlla sant ñu taxawe ko kenn ku nekk nga def ci sa masuliya état am na ci masuliyaam def na ko defu ko moo xam moo xam waajur wi am ci masuliyaam def na ko defu ko ay ca sëriñ daara bi ko saalik sëriñ daara bi ko jamono yi ma Dakar di jàngale dama daan def booba internat melagul ni mu mel waaye booba dama daan def booba internat man nga wax ni parcelle rek la parcelle rek ma daan def léeg-léeg bu ma jaaree ci mbedd ma gis ay xale yi football léeg-léeg ma jege ci ñaar ñett waaye yow da ngaa jàngiwul loo tee jàngi saa bàyyi da amul lu mu fayee ma jógee fa dem ci internat yi di enquête yow fu sa dëkk mu ni man sama bàyyi day tukki France la nekk sama bàyyi Amérique la nekk sama bàyyi Italie la nekk yow fu sa bàyyi ne mu ni man sama bàyyi Sandaga la nekk ma ne ah ci saam xel bu ma génnee loolu laay xalaat ma ne ah alxuraan mi daan wàcc ca Makka du a faaw yi téye ko mooy ñi amul dara ñu nekkoon Makka amuñu dara dara dara dara ñenn ñi ay jaam lañ ñoo ñoo téye woon alxuraan bu ko bu wàccee ci yonent bi ñu gaaw mokkal ko garde alxuraan karim ñu di leen ci dóor ba cëg yonent bi di lëloog ñoom benn béréb bu ñuy wax daarul arxam ñii ko sëriñ daara yi di defee di leen ko jàngal. ñu di leen duma guddeeg bëccëg alquran moomee di rogalaat ba ñëw ci suñu dëkk bi fekk fi suñu mag ñi suñu mag ñi yor alquran moomule ñuy lakk seen kër yi di leen tëj ñi ñu di leen rey ñi ñu boole leen ak seeni daara taal ñuy jàngale fi sabilillahi ma ne alquran moomu nag moo dem ba léegi ku bàyyam amul alal dootoo mokk alquran man lii duma ko seetaan man fas naa yéene samp daara jàngale fi alquran fi sabilillahi taala loolu moo tax ma sos ya uloomu diin gannaaw ba ma gisee la ca sëñ tuwaax muy bustaani ñaar yii moom a motivé pour ma taxawal daara daara ji kañ la taxaw 2013 fii boobaak léegi ñaata xale fi mokk alxuraan ñaar fukki donga ak juróom ci diggante góor ak jigéen léegi laa bàyyi jël de donga yu jigéen rek ndax yàq jamono waaye ñaar fukki donga ak juróom ñoo fi mokk la kon diggante 2013 ak léegi ba ñibbi seen kër yi waajur waxoon naa ne que ma ci gën a yéem mooy ki doonoon ab lawbe te seen waa famille yëpp ñu xamuñu lawbe bu jàngal alxuraan bayam ni ma yobul rek maam ja mo magal si ñew ba fi ni ma ñun da leg ay serigne lan mané ah lu leen def ay serigne mu sa donga ba moy jité ci sunu juma ja wa koñ bépp ab serigne lañ ma jappé leg ndax sama sëj bobu rek mané ko mu ngo alquran mom yalla indi ko pour law bay wala pour guer wala pour ñeño pour ñepp la alquran yalla indi ko fi pour law bi wala ñeño wala guer pour ñepp la ñu la bi di jàng dig, foo ko mas a dégg foo ko mas ah, ku ko bu internet bi bi may tek xeeru juma ji amna na bo boo xam ni moo doon jàng jeexitalu suuratu kahf inna lasina amanu wa amilu salat kaanat lahum jannatu firdawsi nusula bam jeex moom moomee xale boobee koy jàng ab bela be la bàyyam benn conférence bu ma doon def fële ca bamako la ma rek di ma koy famille bi yëpp bañoon kon wax la ni la alquran noonu la mel sëñ tubaa nee ne qiraatul qurani amnun min allahin mu ne qiraatul quran amnun min allahin wa min shaqawaati wa min makril muin sëñ tubaa nee na jàng alquran qiraatul quran amnun min allahin nee na day tax a mucc ci iblis jàng alquran day tax a mucc ci iblis wa min shaqawaati day tax a mucc ci texee di ëllëg yowmal xiyaam ومن مكر المعين داي تخا موتي سي فخم يالا خمغا يالا ليك ليك امنا سي جام ньо ньо خم دالين ني مبطل سيغ توبا نينا جانغ القران داي تخا موتي سي مبوك يالا مبوك يالا موي جايلوك يالا جانغ القران داي تخا موتي من ربيع عبد يقرا القران وللجنان لا يرى سمعان من بونفيسو جانغ كاتو القران بونفيسم mooy dem àjjana mu ne te gis nga bis ba nga xamee ne doomu aadama yëpp daañu dekki mar ba mar konjooñ ba bu ñu naanul dee nee na keroog bu yow mal xiyaamee jàngkatu alxuraan boobu du mar loolu la sëñ Tuba wax jàngkatu alxuraan boobu sëñ na keroog yow mal xiyaam du mar mukk mu ne inna tilawata alkitaabi mulk wa huwa liman yabqi najaa najaata fulk nee na jàng alxuraan day tax a nekk buur jàng alxuraan day tax a nekk buur mucc ci naccoo diku yëpp mu ne wujjoo xaari il kitaaba naadira yowmal jasha lil jamili naashira sëñ Tuubaa nee na jàng alxuraan bu keroogee ba doomu aadama yi dekk seen xar kanam yi ñëkk ñuul ba mel ni godoron mu ne bu keroogee jàngkati alxuraan yi seen kanam day leer naññi ba mel ni jantu digg bëccëg alquran wax na ko wujuhun yawma isin naadiratun ila rabbiha naashira suratul qiyaama wujuhun yawma isin naadiratun ila rabbiha naashira sëñ Tuubaa ne jàng day leeral xal xarkanamu borom bi ëllëg yawmal qiyaame moom mi daan jàng alquran ay waa jëlee leen ñoog suñu daara yi waaye ñu jàng alquran te jàngale ko bàyyi leen ñoog suñu daara yi ñuy jàng alquran jàngale ko lobi xam ni xam nañ ne sirrub lislaam Sénégal dong la des léegi sirrub lislaam waaye mbootum alquran Sénégal dong la des léegi ndax boo xoolee Sénégal lépp lu fi am ci bon dana am kuréel bu jóg ñaawlu ko loolu Sénégal dong ko gis aca demal bitim réew moo xam réewi naar yi la góor jigéen a nga ne xas kenn ñaawluwu ko ba ci réewi naar yi laa góor jigéen yaa nga fa ne xas kenn ñaawlu ko Sénégal dong ñoo fi desandoogul ci ñuy bañ lu bon waa Sénégal dong nga ko gisagul ci ñuy bañ lu bon Amérique ngi nii jëm ci ay élection dem leen ci internet bi bu nu xoolee léegi xam ngeen ni ñoom ñaari parti fa am bala ñoo dem ci élection yi am na élection yu ñu def ñu di ko tuddee primaire xam ngeen ni parti bi nga xam ne ci la hmm, euh, Trump mbokk ñoom xam ngeen ni Trump mooy représenté waat xëy na waaye beneen parti bii ci des may wax nii gis nga bi ñu defee primaire yi ñu njëkk a def ki jël première ci état bi nga xam ne ci lañ ko njëkk a defee góor jigéen la te moom nëbbu ko taxaw na ni moom jëkkëri góor la am góor jigéen la te boo moytuwul moo na rey moo nar a yilif Amérique tey loolu lañ bëgg indi Sénégal noo lànk noo lank buut ku ñu lànkale du fi am loolu lañ bëgg indi Sénégal du fi am de mooy miinal ñu lu bon xamal ñu lu bon ba du lu bon dootuñu naqari. ñu dem bay am président wu góor jigéen noonu lank noonu lank bàyyi leen ñoog suñu daara yi ñuy jàng te jàngale ah ñi nga xam ne ñooy procureur yi nag maa ngi leen di ñaan ñoom ñu xam pilim bi ñu yor di ci signé mandat dépôt yi ah am na bis buy ñëw de sëñ tubaa nee na al mawtu yaati baqatatan rubma yakunu sa sawaqidin muxtarima nee na bari waana procureur bu toog bureau di signé benn mandat dépôt bam noppee rek fanaane très attention yóbbu nit ñi kasso da ngeen ko yombal wax naa ko keleur bi ma jàppoon fii ci njëriñ kere ba ma ñëwee ni ko loo ma jàppe fii laa toog ci jànnatul maxwaa def benn conférence keleur booba commandant bu ñu wax commandant Diallo fi nekk yónni mu yónni ko mu ñëw fekk ma ci biir conférence bi ni pula moo ma yónni pour ma jël si la ci plainte boo xam ni ay gars yu di ko ko defoon jëmee ci man ma ñëw ni ko waaw loo ma jàppe mu ne ah dañuy wax ni yow da ngaa wax ni diwal ak jur am nga ci li am ci la mané ko yow xam lo ma jappé laaj mako mu ni ma luma la jappé mané ko xana si ndax luko dal nuru um ko ko yobbe waye ñi liñ wax ni mané ko dañuy katch rek té bis bu ngeen ginné prof bu koy mu ko amna bibliothèque bo xamné la ca nekk ci man do dong la bëgg mu ne ko jege na genn wàllu million ca jamono boba ay 2008 mané ko jege na genn dana million dana la ko jox dara du ci dëgg seen mandat dépôt yi da ngeen cee gaaw lool nit li ko yóbbu kaso war naa doon lu piir te diir lu piir te diir waaye jéng xale loolu day bàkkaar jéng xale rek loolu du bàkkaar du kirim du délit a ah, xanaa yéen a ko jàppee délit waaye jéng xale du kirim du bàkkaar du délit moyen de sanction la pour xale bi mokkal liñ ko bëgg a mokkal comme ni ngeen amee ay moyen de sanction yoo xam ne nii yéen a ngi koy def ci kaso ñi nga xam ni dem nañ ba am yeneen moyen yu gën jéng bàyyi nañ jéng loolu même sëriñ daari bu ngeen leen ko waxut ñoom ñëpp daañu dem ba bàyyi jéng sëriñ daara yëpp ndax lu tax jamono day gën di avancé ñuy gën di développé ba mën a tabax ay jumtukaay yoo xam ne xale bi mën na faa nekkal ba mokkal alquran te du génn daara ji waaye ku dëkk ci ndànd foy foy amul beneen moyen bu dul boobu rek loolu war ngeen ko mën a comprendre ba nga xam ne même bu fekkee ne constitution bi dafa tere jéng ci koo xam ne ma nga ca kaw ga di jàng jàngale di former ay citoyen waaye waaye ngeen ko ko mën a pardonner du moins te man maa ngi waat yàlla ni suñ xaadim moom mu keroog boobee ñu xamee ne loolu am na buñ ko woowoon mu ñëw ñu ne ko ah ñun kat jéng constitution bi da koy tere dañoo bëgg nga ba ko kenn dootu ko gis daaraam comme xale bu mënta téyel ba ko mu demee ci bokkam ña waroon a dem prison tey mooy ña jël photo ba vilipande ko yàgg na ma waxtaan ci diggante Facebook ak ak ak WhatsApp fi mu nekk nii man waa CNRA toujours ma wax leen ko lan ngeen di xaar ci diggante WhatsApp ak Facebook lu ngeen ci xaar ndax nit balaa ubbi rajo dana ñëw ci yéen kayit bu ne dana ko wut balaa am fréquence lu ne dana ko daj te du tax mu am fréquence te pourtant WhatsApp yi ak rajo ak ak ak euh, Facebook yi ñoo raw télévision. fi la ay xale romb ben police bo xamni ni dañ koy ger kep xale yi filmer ko partager ko xale yoy luñ leen fitnaalul amul kon ki partager won xale buñu ñu jéng bi dañu xam ndax xale bi ëlëk walli lay doon wala déet xam nañ ndax walli bi xale bi tay ëlëk ministère lay doon wala déet xam nañ ndax député lay doon wala déet te photo yi am nañu ko enregistré gardé ko gardé ko te fi ci Sénégal xam ngeen ni nit ku ne buñ la xamalé dara sa bo xamanteni ni yàlla gis na yàlla dogal na ñu séen la ci seen kanam luñ la xamal ci lu bon daañu ko wili pande mooy comme li ma waxoon procureur bi ma ne ko ñii buñ xamoon ci man lu bon ba tey nëgëni waxatuñ ko ma ne ko wax ju du dara tegewul fenn dañuy kàcc rek ñoo créé seeni lobby rek def ko mu ne ko man sama kàcc ak ma ca mu ñu nga xam ne ñoo filmé xale bi partagé ko nëgëni ca kaso ba la leen war na fekk parce que lu tax ñuy jël doomi jàmbur di ko partagé lu tax boo liggéey mu nekk fi njiit nekk fi kilifa ñu di ko ko rappelé naan ko xoolal fii nga doon daw daara bañ lay jéng jéng baa ngi nii loolu mën na ko soke ñooñu waroon a dem kaso ñooñu waroon a dem kaso lañ waroon a def bu fekkee ni ñoom dañoo rambaaj rek bay rambaaje lañ waroon def mooy taal seen oto dem police wax ko ni leen daara yi diw day jéng waaye waruñoo foto di partagé buñ dee rambaaje dong noonu lañ waroon a def dem leen daara yi diw dem leen daaray diw jëng nag moom wax naa ko sëriñ sépp a def sëriñ si fi yori daar ñëpp ay jëng ñoom ñu yor ay daara ci àll bi xam nañ li ma wax ñëpp ay jëng nee nga xam ne noonu la xalifa lew na ñaween ñaseen bi def noonu la ñëpp war na def moom daa taxaw ni man mii di wax yéen maay saab xalifa bàyyi te dañ maa jéngoon te wallahi xam naa ci ay fukki fukki fukk ñoo xam ne ñooy seen xalifaay bàyyi dañ leen a jéngoon waaye tey ñu ngi nii tekki nañ jubóog seen i bokk jubook seen boroom jubook seeni moroom lu leen ko may alxuraan buñ fa xaar woon jéng ba duñ ko am kat kon ay délinquant la ñuy doon daanaka jéng xale boo gis ñu ko def benn baayam borom barke la wala am borom alal la moom loola lay daal di bëgg dem fekk ji ko léegi pour dund ko loolooy tax nga gis kilifa yi di jéng seen doom yi yóbbu leen ci daara yi ndax xalel bi barke baay bi rek lay gis ak dund gu neex gi te fekk dund gi neex gi xëyul ñëw daa am fu baayam jaar door ci yegg baayam bëgg ko faa jaarale nga ne ko doo ko fi jaarale ñun jéng gisuñu benn benn benn négatif bu mu def te gis nañ ay positif yu mu def waaw loo xam ne yaa ngi koy def te jurul amul négatif te am na ay positif ñu ne la loolu baaxut jéng ñun ñiñ gis ñu def ko ñëpp ay résultat yu positif la la la jur gisaguñ mukk ku ñu jéng mu jur résultat wu négatif man gisaguma ko te wax naa ni sëriñ daara bi jéngoon donga bi bis bu donga bi amee alal moom lay jëkk teral sëriñ daara bi jéngoon dong ba noppi ci moom wallahi bis bu donga bi amee alal moom lay jëkk a teral kooku am na lu ko naqari ci sëriñ daara bi aca yow takk der bi mënooti nit yóbbu ko police tëj ko yaa noonam ba yow mal xiyaam yaa dim noonam bu maa jëlee la sax yow takk der bi waaye nit dong boo ko xasee porte plainte yóbbu ko police yaa dim noonam ba keroog ngeen di daje yow mal xiyaam dootu la bëggati ci àddina ak loo mën a def pour mu bëgg la dootu la bëgg ndax boo ko toroxalul toroxal ko nga bëggoon bu yàlla dogalul mu torox fay yow toroxal ko doon nga bëggoon kon maa ngi delloot di ñaan sunu mbokk procureur yi seen istilo boobu ngeen di signé mandaa dépôt yi def leen ci tere attention def leen ci tere attention ah am na beneen bis buy ñëw de àddina yëmul tey de àddina yëmul de su ko defé kon sëñ mudu loolu doon waxtaan wi ñu leen di ñaanal di sakku ci yeen ñaan di ñaan suñu borom mu defal ñu tawfiqul aadi musal ñu ci am ndog musal ñu ci pexé noon musal ñu ci ayu shaytané ak ci bokkam te may ñu fan wu gudd ak fekkee te wërsegal ñu alquran nek suñu tawfiq si dunya wal akhirah wërsegal nu alquran mi mu ñu tiyé ko ak suñu fukki loxo ba keroog ñu ak suñu borom rabbi sulu jall mu gëreem ñu dugal nu aljana ñi nga xamni ñoy jël seenu ñak diko duggal ci alquran موك ني جانغال القران ньо بوك تياما جا ëlëk يوم القيامة يال ني لن كو يالله بولے نون لا كو سون بروم ديفال بو سو جال كون دي گرم نييب دي واخ اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تشخ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا من لدنك رحمة وأيه لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا من لدنك رحمة وأيه لنا من أمرنا رشدا يا رب يا أرحم الراحمين ودمر كل أحداه تدربنا قبل وصول لنا يا الله يا الله ودمرا كل أحداه تدربنا قبل وصول لنا يا الله يا الله ودمرا كل أحداه تدربنا قبل وصول لنا يا الله يا الله يا رحمن أسبل ستور أصلح أموري كسر خير بلا كدا يا سل جلالي يا متحالي يا خير والأجب دعاء الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله خمنا أمن am nañu bëgg ما da ngeen ببنين يون ah eh, bu ko defee ngeen may ma ma dem ci majalis bi don yaa ngi may xaar pour jàng majalis eh, majlis bi kon daal ñu ngi wax suñu borom ni ko alhamdulilahi li si bi ni imati tati mu wa wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu